ok alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ci lim ñu wërsëgalaat ñu daje ci ab néegam jooxati waxtu farata fas yéene fee toog di jàng la aju ci diineem baba beneen waxtu dañu fa fekk ñu ngi ñaan suñu borom yàlla yàlla nañu ko nangul ñu ngi doon topp suñu téere bii di minhajul muslim bu cheikh aboubacar aljazairi rahimahullah ba yegsi woon li ñuy tuddee jumlatu uqud ba yegsi woon ca foofee li ñuy tudde alwakaala alwakaala yaakaar naa ñu yor mool bu bees bi ñu ngi ci page 327 bi alwakaala bokkoon na bind la bu ñu ubbi woon dimanche passé ba jëloon ci leeraloon ne wakaala moom mooy nit ki nga am ko wóolu la nga waroon a taxawee nga ne ko kaay taxaweel ma ko loole ñu gisoon ni ka kay santaani bu dee majeur na ànd ak xelam kam kay sant majeur na ànd ak xelam doxalin boobu lislaam da koy daldi nangu ba jëloon ca ay tegtal yu bari tey nag ñu ngi waroon a jël li ñuy tuddee ahkaamuha alwakaala ñu ngi ci ñeenteel bi mooy ahkaamuha mooy yenn atte moom la ñuy fekk ci biir wakaala boobu te mooy nit ki dénk ku ko wuutu ci mbir su dee bokk nañ ko gis mu ne tusbitul wakaala dana sax lii di ak kuutaay bi kulli qawlin yadullu ala al izn ci bépp wax boo xam ne day tegtale ne lii ndigal la fala tushtaratu laha siigatun xaasa kenn du ci sàkku di ca chartool ni nii rek la war a tëdde waaye waa ji lépp loo xam ne wax nga ko te wax de di firi ne ci jox nga ko responsabilité islam day nangu loolu ñaareel bi tasixu lwakaalatu fi kulli xaqin shaxsiyin day sax lii nga xamee ni nii moom mooy ak kóotaay ci bépp àq boo xam ni nit ki da koo yeyoo min al uquud ca la nga xamee ni nit ñi daañ koy jël di ko fasante ci seen biir kal bay'i wa shiraa'i lu mel ni am am njaay wala am jënd wan nikaahi war ruj'a mi ngi noonu war raj'a ak lii nga xam ne mooy takkub sëy wala lii nga xam ne mooy delloo soxna sañ pase woon wal fusuuxi ak lépp loo xam ne des na ko teqalee ci sëy boo xamee ne nii tas amu ca waaye lu mel ne sumi ko gi demee noonu ka talaaqi ca la nga xam ne mooy fase ya wal xulu'i ak summeeku ya kama tasihu fi xuquqillah dana wérit ci aqi yàlla taala alati tajuuzu fiha niyaaba aqi yàlla ya nga xam ne dana dagan ñu wuutente ca ka tafriqi zaka lu mel ni joxe azaka teqale séddale azaka wa kal wa kal xajji wal umra wala ajak umra an mayitin aw ajiz suñ koy defal ku faatu wala ñu koy defal koo xam ne dafa lot mi ngi noonu kon mbokk day wax fii rek ne ak jullit islam may na la àq ci lépp loo xamee ne nii da nga koo bëgg a jëflante nga woo keneen kooku taxawal la ca comme yow julitit bu nit ñëwee ne la taxawal ma ci nangam loolee taxaw ba nga cay taxaw islam may na la ci ndigal mu joxe ci ay misaal lu mel ni demal jëndal ma nangam doomu aadama bi ma dem waxaale ba d'accord ci prix jënd loole lislaam may na ko jaayal ma sama lii yow nga dem jël sa responsabilité xool prix ba ca yeyoo nga jaayal ko ko islam may nangu loolu demal place sangam nga ñaanal ma soxna islam day nangu loolu sama soxna see ma fase woon day demal ci ay woyu juróom nga xamal leen ne delloo siwaat naa ko comme soxna islam day nangu loolu demal nga ne diw fase naa ko kookee dem jottali fase ga islam day nangu loolu loolee lii di wàllu summeeku masalan nga ne soxna si demal ci diw nga delloo ko can gi wala nga ne diw demal ci soxna tel mu jox la can wala lu mu teg sa loxo rek loolee day nekk ak summeeku islam dana nangu loolu naka noonu itamit am na ay aq yoo xam ne yàlla rek a ko yeyoo yow mi war a génne zakat suñu borom dane zakat bi na nga ko jox ñii ñii ñii ñoo ko yeyoo waaye am nga droit yëkkati sa zakat dem ci koo wóolu ne ko lii kat zakat la séddaleel ma ko su boobaa yow sa jaan wàcc na ca moom itamit ma nga xamee ni nii moo jot zakat ba mu séddale ko nañ ko war a séddale lay am ci zakat moo am te la ñuy maye wala lu mu mën a doon jaami yàlla yi it am na yu ca islam maye ñu defal ko keneen ca mooy lu mel ni at ak umra nit ki dafa faatu mënees na ko ajal umraal ko yool ba fekki ko kii daa waroon a aj mi ngi dund waaye amul kattanu dem aji ji ku mel noonu ñu ajal ko islam dana nangu loolu allahuma nag la ca gën a mucc ayib mooy yi yonent bi alayhi salaam tuddoon ci jaamu yàlla ne lii dana jëriñ doomu aadama ñu yem ci loolu am na ñoo xam ne dañ koy boyal ci lépp mooy yépp jaamu yàlla mën na sa koo defal ñépp waaye la gën a wér mooy la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ndax tey jii ku ne xam ne ne ni koor munta jot nga ne benn waay wooral ma sama weeru koor gi wala julil ma tibis ji wala takkusaan ji mi ngi noonu ala kulli xaal loolu la ñuy wax ci loolu amma ñetteelu bind bi yow mi yor sa téere mu ne tasixu alwakalatu fi isbaati alxudud dana wér ak wuutaay ci saxal la nga xam ne mooy atteb yàlla bay dal ci nit wa fi istifaiha ak la nga xam ne mooy doxal atte boobe li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li unisin ndax yonent bi waxoon na sahaaba boobe di unis uxudu ila imraati haza bu subaa xëyal ma ci soxna suwaasi waa ji fa ni'tarafat su nangoo njaaloo giñ koy jiñ farjumha dooru koy xeer ba mu dee kon day wax rek ne kii di attekat bi am na droit yónni ku ko enquêtal kookee dem ba am ay preuve yuy wone ni kii kat yoon tege ni ci kawam attekat boobu nga xam ne moo war a doxal yoon su ko neexee sant keneen ko demal dumaal ma ke wala daggal ma loxo ke wala sax rayal ma ke gis nañu histoire bi li ko waraloon mooy ay arab yu dëkke woon ca kaw ba ca kaw Madina bis dafa am ñaar ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn ni ko ne ko yómu yàlla yónni dama bëgg nga teqale maag waa ji ndax sama doom da doon liggéey ci këram léegi nag mu njaaloo ak soxnaam mu créer ñu problème ma dem jox ko téeméeri xar ak benn ak ak ak benn jaam waaye ba ma delloo dajeeg borom xam-xam ñu ne ma loolu waru la woon sa doom bi maadaama musta sëy moom dañ koy duma rek téeméeri yar lañ koy duma soxna su waa ji kay lañ war a rey waa ji nag ne ko kon da nga may delloo samay xar mu ne ko du ma la delloo mu ne kon nañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñëwee ci yonent bi alayhi salaam mu ne leen danaa leen àtte ci téere bi yàlla sa téeméeri xar yooyu ak sa jaam boobu dañ la koy delloo ngi noonu ndax loolu amul du àtte bi yàlla daa di ne kenn ci ndawi sahaaba ya fa nekkoon Dionis ne ko boo xëyee demal ma dëkk sàngam soxna sa waa ji nga laaj ko gëstu ko su nangoo ne njaaloo woon na ak xale bi surga bi su boobaa moom dañ koy rey bañ demee soxna si nangu ne moom njaaloo woon na ak moom mi ngi noonu xëy na jàppoon ne ne indil na borom këram ay téeméeri xar ak kaza wa kaza almuhim dañ koo mujj rey dañ koo mujj rey gannaaw ba mu nangoo ni njaaloo na mi ngi noonu la nga xamee ni nii moom mooy ñeenteel bi yow mi yor sa téere mu ne la tasixu alwakalatu fi lqurb du dagan ak kóotaay fi lqurab te la nga xamee ni nii dañ koy jegee yàlla ci jaamu yàlla allati la tajuuzu niyaabatu fiha yoo xam ne du dagan ñu cay wuutante fa salaati والصيام بمن جل أكور كما لا تصح في اللعان والزهار ددغن يوتنتي ci rebbonte ak sa soxna wala ci ki nga xam ne day jël soxnaam di ko yemale ak yaayam wal ayman kenn du wuutante ca waat yi ñu war a waat wan nuzur ak nisër yi ñu war a nisër wa shahadat ak seede ñu war a seede kama la tasihu fi kulli muharram comme na nga xamee du dagan ci lépp lu ñu araamal is ma la yajuuzu fi'luhu ndax loo xam ne du dagan ñu koy def la tajuuzu alwakalatu fihi du dagan ñu ci wuutante mi ngi noonu kon mbokk day wax rek comme niñ ko waxe sànq nit ki farata gàllu ci kawam amul droit wax kenn na ko demal defal ma lii mu joxe ci misaal lu mel ne julli ak lu mel ne koor xatta la nga xam ne mooy aj makka ki lott mënees na ko ko defal waaye ki am kattanu man koo def loolee du sant ko ko defal naka noonu itamit la nga xamee ne nii mooy rëbbante ak soxna masalan jiñ nga ko njaaloo mu bañ mu mu weddi ko wala mu indi doom nga ne ko doom bi juruma ko ñu war a taxaw ca attekat ba rëbbante ndax am nga droit yebal koo xam ne mooy dem di la waatal loolu dañ naan déedéet loolu la ñuy wax ci seede ya doomu aadama bi la muy seede moo koy seedeel boppam mais muntu yónni keneen ko ko ko seedeel koo xam ne moom fekkewul amma loo xam ni dafa xaraam loole kenn du sant kenn mu dem di ko ca wuut ndax loo xamee ni nii daganul yow nga def ko munoo dem di ca wuutu keneen pour mu la koy defal soxna soo xamee ni nii daa am ku mu diggaloo woon ci wàllu njaaloo munul dem woo ab xaritam na ko demal nga njaaloo kële loolu mi ngi noonu lu tax mooy moom bu ko defoon day xaram yow noo cay wuutale keneen noonu la àtte yëpp demee ci kay lekk riba kay jënd sàngara sa kay nangam kay nangam fokk bala ngaa wuutal day fekk la ngay wuutal doon dagan li mu yor sa téere bu dee da ngaa ñëw ci juróomeel bi tabtulul talul wakaala des na dana neen la nga xam ne mooy wuutaay ga bi fasxi ahadi tarafayni laha heure buñ demee ba kenn ci ñoom ne ko ah man kat génn naa ci aw bi mawti ahadihima wala kenn ci ñoom faatu aw jununihi wala mu doon ku teqali ko xelam aw bi azlil muwakkil lil wakil wala ka nga xamee ni nii moom moo dénkaane woon ak kootaay mu daal di daq génne ca kam ko wutaloon naam kon noonu la ko waxee mooy wakaala dañuy gis ne heure boo xamee ni nii kenn ci ñoom woo na moroom ne ko bàyyi naa mbir ma foofu lay yem ki nga santoon na ko jaayal ma sama kër gi jëndal ma nangam demal labatal ma soxna sangam demal nangam bis boo ko woone ko hey dama la santoon kat bàyyi ko amatul droit dem di ko defeti abadan lu dul yaa ko joxan ndigal su ñëwee ci juróom benneel bi mu ne fa man wukila fi bayin aw shira ku ñu wuutal ci jënd dara wala jaay dara laa yabiu wala yashtari min nafsihi ku mel noon day du jaay boppam du jëndal boppam ngi noonu wala min waladihi du ko demit di ko jëndal doomam wala min zawjatihi du ko jëndal soxna boppam wala min man la tuqbalu shahadatuhu lahum wala kenn koo xam ne ak seedeem duñ ko nangu ci ñoom liannahu yutahamu bilmahabati alqaraba ndax su boobaa mënees na ko tuumaal te la nga xamee ni nii mooy ak cofeel gu muy am ci ak jegeñaale wa mislul wakil lu mel noonu ñuy tere kañ wuutal fi haadihi ci yëpp almudaarib mooy ka nga xam ne dafa am ku muy jëflanteel ci wàllu alal wal wasiyu ak koo xam ne dañ koo dénk benn responsabilité doon ca yetim ya la wala leneen wa sharik ak koo xam ne daa am kum bokkal mbir wal xaakim wala koo xam ne buur la bi atte wa naazir naazirul waqf ak kan jox muy surveiller la nga xam ne mooy waqfa ya mi ngi noonu kon boo ko day wax fii rek ne kii nga xam ne dala dem na laa sama masalan oto bii day demal nga jaayal ma ko yow boo demee doo dem xool prix bala neex nga jaay ko sa bopp kii waxoon ne la jëndal ma nangam jëndal ma xar sangam doo dem fekk sam xar nga jël prix bala neex nga jënd nga jëndal ko jëndal ko xar ma la sa doom moom wala sa soxna moom it doo dem xool prix bala neex nga jaayee ko wala nga jënde ko ndax loolu lañ la ca mën a tuumaal ci loolu la ñuy wax waa ji nga xam ne day def lu mel ne mudaaraba ci jox la xaalis yow ngay liggéey loolee ngay liggéey doo dem di ko jaay sa bopp wala di ko jaay sa soxna ndax mën na indi tuuma ki nga xam ne it dañ koo dénk alali jaamburo lu mel ne yettim mi ngi nii am alal ñu dénk lu ko alali yettim jooju nga xam ne da nga koo war a ñoŋal waroo dem di ko jaay sa bopp wala di ko jaay sa soxna loolu la ñuy wax it waa ji nga xam ne dafa am ko mbokkal la nga xam ne mooy alal am ca responsabilité la muy jëflantee ca alal ja waru koo jëflantee koo xam ne jege ñaaleem ya loolee mën a indi tuuma ci diggante kam ko séqal attekat bi atte it nga xam ne mooy sisir nit ñi mooy dogal loi yi la muy jëflante du ko defal boppam di ko atte di ñeel boppam di ko jaayal boppam wala ak njabootam loolu la ñuy wax ci ki nga xam ne lii di waqf yi mooy kër yi ñu taxawal ngir yàlla wala tool yi ñu taxawal ngir yàlla lépp lu aajowoo ñu jaay ko ca du dem di ko jaay boppam wala jegeñaaleem ngir loolu lim mën a jur ak tuuma mi ngi noonu suñ ñëwee ci juróom-ñaareel bi laa yadmanu alwakiilu maa daa aw talifa ki nga xam ne mooy kañu wuutu lañ ko jox la ca réer wala mu yàqu ca du doon ku koy garanti war koo fay ida lam yufarrit aw yataadda fi ma wukila fihi su dee na gàttañ luwul wala mu jéggi dayoo te lañ ko joxoon responsabilité loolee réer wala mu yàqu du ko fay wa in farrata aw taadda waaye bu dee daa gàttañ wala mu jéggi dayo fa alayhi damaanu ma daa aw atlafa su boobaa day yor garanti lépp loo xam ne réeral na ko wala mu yàqu ko naam day wax rek ci ne kon nit kiñ joxoon benn matériel wala benn jur mu war koo taxawee ba mën koo jaay wala mën koo sàmm ba yóbbu ko place sangam yàlla dogal mbir ba réer wala mbir ba yàqu ca moom amul benn gàttañlu boo xam ne def na ko ca yàlla dogal loolu su boobaa kenn du ko toppe loolu waaye bu dee ne moom moo sàggee ne mbir ma ba mbir ma ñu sàcc ko wala mbir ma réer borom am na droit taxaw na ko fay ma su dee moo ko jëfandikoo ci nu mu ko wurta jëfandikoo yi te oto ba la ci durga te lu mu mën a doon ba mbir ma yàqu borom am na droit na ko fay ma mi ngi noonu loolu di mbiri ay atte amma bu dee juróom ñetteelu bind bi tasixu lwakalatu lmutlaqa dana dagan kuutaay goo xam ne dañ koo boyal fa yajuuzu tawkiil fi saairi alxuquq alchaxsiya dana dagan ñu wuutal nit ki ci mboole mi aq yoo xam ne aq ya waaye ya waaja jagoo la fa yatasarrafu alwakiilu fi saairi alxuquq ka nga xam ne moom lañ jox kuutaay ga di jëfandikoo di doxal ci mboole mi aq ya alchaxsiya ya nga xam ne waaja da ko yeyow lil muwakkil ñeel ka nga xam ne nii mooy kaka ka jox illa fi misli talaq xanaa lu dul ci lu mel ne fase ay soxnaam is la budda fihi min iradati almutalliq ndax fokk koy fase da koy bëgg wa azmihi alayhi dogu ci loolu li muy bëgg a wax fii rek mooy li ñuy dégg léeg-léeg mooy diw dey mooy samay loxo mooy samay tànk te mooy nit ki dem ba yëg ci boppam ak mage wala ak feebar mu jël doomam xaritam kum mën a doon ne kii daal mooy responsabilité ci léppam dénk naa la alal ji dénk naa la njaboot ji kum ca maye maa ko maye lu mu jaay man la kuy jëflanteeg moom la jëflanteeg moom mboolem sama moomeel sama responsabilité teg naa ko ci loxoom loole dañuy gis ne lu mën a nekk la su ko defee kooku la muy def ca alalu waaj ak njabootu waaj islam day doxal loolu ndax moom moo ko jox responsabilité totale amma nag lam ci génne masalan lu mel ne fas ay soxnaam ak yu demee noonu loole moom amu ci amu ci àq ndax fokk loolu dafay laaj ak yéene su ñëwee ci juróom-ñeenteel man ayyana lahu muwakkiluhu shiraa shay'in koo xam ne da koo tënkal kaka jox responsabilité ci mu jënd na mbir laa yajuzu lahu shiraa'u ghayrihi du dagal mu dem di jënd leneen lu dul loolu fa mata ishtara ghayra ma uyyina lahu heure bu jëndee lu bokkul ak lañ ko tënkaloon na ko jënd ko fal muwakkilu bil xiyaar kaka joxoon kootaay ga day nekk ci tànn fi qabulihi aw raddihi ci jël ko wala mu nangu wala mu delloo ko wa kaza in ishtara lahu muayyanan bu dee ne naka noo nit da koo jëndal benn mbir aw ishtara waaw aw wa kaza in ishtara lahu maiban mooy bu dee da koo jëndal loo xam ne ayib da caa am aw ishtara bi ghabnin zahir wala mu jënd ci loo xam ne ni nax gu metti da caa am fa inna al muwakkil bi bi bi xay bi xayara yu xayaru fa inna al muwakkil yu xayaru ka nga xam ne moo ko joxoon ndigal dañ koy tànnaloo fi zalika bil aqsi aw tark ci mu jël wala mu bay kon day wax fii rek ne ki nga xam ne dañ ko woo ne ko demal jëndal ma nangam jëndal ma xaru sàngam wala oto sàngam wala jëndal ma lekk sàngam ku mel noonu amul droit dem changer boppam jënd lu bokkul ak la ko waaj a wax heure bu jëndee leneen kaka yónni woon am na droit nangu ko am na droit ne ko delloo ma sama xaalis lii sant ma la ko woon mi ngi noonu su dee it daa dem jëndal ko loo xam ne ayib da caa nekk am na droit delloo ko su dee ne lam ko jënde dañ ko caa nax ci prix bu mag ñu ngi noonu loolu it am na droit delloo loolu ñu ngi noonu loolu kon day wane ni ki ñu jox wakiil du na rek lu ko neex def waaye loolu nga xam ne mooy alwakaala dañ koy def ci maaruuf mooy loo xam ne njëkk la bu ñu xam waaye heure boo xam ne waa ji génn na la nga xam ne mooy njëkk kaka kasantoon am na droit dellu gannaaw ci loolu amma fukkeel bu ci mujj tasihul wakaalatu bi ujra nit ki am nga droit jox ko responsabilité boo xam ne ci ak pay lay aje wa yushtaratu fiha tahdidul ujra su boobaa dañuy leeral ne pay gi nii lay tëdde su dee waa ji defal na la la nga ko sant wa bayaanul amalil muwakkili fiihi gannaaw ba ñu daal di leeral nag la nga xam ni mooy jëf ka nga xam ne nii jëf ba nga xam ne dañ koo jox koo tay ca loolu loolu kon mbokk moo aju woon ci wakaala li ci tege mooy benn exemple pour nuñ koy bindee lañ waxoon ci yëkk a jiitu rek lañ ciy wax xam naa dañuy wax rek ne bunt bi ci tegee beneen bunt la bu bokkul su dee ni liñ doon jàng ci wàllu wakaala am na ci koo xam ne day am laaj bu ca jëm incha allah bala mu koy fàtte ñu jéem ca tontu bala ñoo dugg ci beneen bunt bi naam su dee ne am na naam bismillah naam mooy ya ñuy jaamoo yàlla mooy jaamu yàlla muy ibadaat mooy ibadaat yi naam naam waaleykum salaam waala kulli xaal nit ki bu faatoo bàyyi boru koor bor boobee doon na lu rafet ay jegeñaaleem fayal ko muy doomam ak jegeñaaleem fayal ko bor boobee loolu mi ngi noonu donte ne moom waxu ko woon nañ ko ko defal waaye maadaama dee na ci wóor na leen ne am na bor koor bu mu fayul woon yonent bi alayhi salaam daana wax ne képp ku dee fekk mu ngi yor boru koor saama anhu waliyuhu ka nga xam ne mooy ay féeteem dañ koy war a fayal bor boobee wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam ndax ko majarugul ki nga xam ne majeuragul responsabilité ba muy def ci alalam fokk ay kilifam dañ cay d'accord allahuma lu dul mu nekk mbir yoo xam ne nii nekkul mbir yu mag masalan xale bi mën nga koo yónni mu dem jëndal li fii ak lekk goo xam ne nii nekkul lu lu lu lu lu garaaw amma bu dee ne ak loo xam ne day jur alal masalan xale bu ndaw amoon ab oto bu dem naan day jaay oto bi dañ naan déet il faut kilifa yi dugg ci xale bu ndaw dem naan day jënd oto dañ naan kilifa yi dugg ci bu dee ne nag loo xam ne nii yu ndaw la nga xam ne ci aada xam nañ ne lii kat aadiwul ay majeur di ko def su boobaa bu ko defee dana dagan mais daal bu dee mbir boo xam ne nii si baal la mooy mbir bu am solo heure bu ko defee heure bu koy def ay kilifaam ñoo ci ànd sinon bu dee def na ko itamit kilifa yi am nañ droit ñoom ñëw dellu ci loolu su dee yëg nañ ne xale bi lam def nekkul lu jaadu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw naam mu ne waaw waaw day wax rek ne ñaar ñi nga xam ne dañoo siq ak dénkaane ku nekk ci ñoom am na droit bàyyi kañ ka ka ka kay santaane am na droit woo ko ne ko kat la bala doon wax bàyyi ko kañ santoon am na droit ñu ne ko kat la ma dénkoon man bàyyi naa ko mi ngi noonu loolu lay wax ci wàll googee bu dee ne kenn dafa ca ñoom dee na it mbir ba jeex na il faut ñay donn ñooy xool ndax dañuy wéel loolu wala duñ ko wéel comme bu defoon wala ka moom mbir ma teggi kam ko dénkoon loolu lay wax ci wàllu boobu naam wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw kon incha allah su amul ñu dem ci bunt bi nga xam ne moom moo ci moom moo ci tege mooy li ñuy tudde asulxu asulxu taarifuhu buñ la ko doon xamal asulxu aqdun bayna mutaxaasimayni lool day benn yéwénal lay doon lii di sulxu ab pas-pas la buy am ci diggante ñaar ña doon daggasante yatawassalu bihi ila xallil xilaaf boo xam ne daan ca mën a jaar ba teggi juyoo gën juyoon juyoo baynahuma seen diggante wa zalika loolu ka an yaddai shaxsun ala axar xaqan mi ngi mel ne rek benn waay woote woo ca keneen benn aq yactaqidu annahu saahibuhu mu gëm ne lii waa ji yor day man mi maa ko moom fa yuqirrahu almudai alayhi ci noonu mu daal di koy saxal ka nga xam ne nii dañ koo woote jiñ ko mbir ma li adami maarifatihi ngiree ne amul xam-xam bu mu am ci loolu ba defoon ko fa yusaalihahu su ko defee mu yéwénoo ak moom ñi ngi noonu mu yéwénoo ak moom juz'in benn cër minhu ca loole ittiqaan lil xusumati wal yamin ngiree moytu la nga xamee ne nii moom mooy dagg sante ba nga xamee ne nii moom moo ci nar a am ak waat ya nga xam ne da ca nar a am fi xaalati inkaarihi su dee ne moom kat dafa doon koo xame ne nii dafa weddi loolu mi ngi noonu ca tey jii day wax rek ne ci sulxo boobee mooy waa ji dafa ñëw na ko yow kat sëñ bi xam nga ne yoral nga ma un million mu ko waxee waa ji yoral nga ma un million waa ji daal di d'accord ci loolu mu ne ko nag waaw comme loolu la léegi fexeel nga jox nga jox ma nangam waa ji am lu mu ko ca wàññil ngiree bañ waa ji di weddi la nga xam ne moom la ko yoral bañu yegg ci wàllu wo yegg at atte dem ci attekat wala nekk di waat ak waat mooy nga teggil ko dara ngiree moytu problème ñaareelu mooy xukmuhu bu dee loolu nag nu ko lislaam gise asulhu jaizun li qawlihi taala lii di yéwnoo day dagan na fala borom bi nee na fala junaha alayhima an yusliha baynahuma sulha dara nekkul ci ñu yéwénoo ak yéwénoo wa sulhu xayr yéwénoo day moo gën wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi waxoon na ne asulxu bayn almuslimina jaizun yéwénal diggante jullit ñi day dagan na illa sulxan xarama xalaalan lu dul yéwénal guy araamal lu dagan aw axalla xaraaman wala luy daganal lu araam boo xoolee misaal bi mu ci jëkk a joxe suñu borom mi nga wax way dencente yi benn soxnaa ngi nii moog borom këram ñu am problème borom bi subhanahu wa taala ni ñu yéwénoo woon de moo gën masalan soxna si waa ji yoral na ko can boo xamee ne nii nekk na lu diis ci moom lool ñu nar a am problème ba loolu mën na jur sax waa ji bañ ko ci ba fase ko mu ne ko léegi yaa ngi ma waroon jox un million wala ñu ngi doon yaa ngi ma doon jox deux cent mille léegi jox ma cent mille yi nga bàyyi li ci des jëree ñu nekk ci jàmm loolu da ngay gis ne lu lislaam daganal la yonent bi alayhi salaam it ni jullit ñi lépp loo xam ne nii yéwénoo nañ ca ka amoon àq ba am lum nangoo bàyyi ngiree jàmm am ci diggante jullit ñi su boobaa dañuy gis ne islam day nangu loolu mu ne nag aqsaamuhu buñ la doon wax cër ya nga xam ne moom la loolu aju mu ne lil sulxi fi l amwal salaasatu aqsaam suñu delloo ci yéwénoo ci wàllu alal ñetti wàll am na ci bi jëkk a sulxu alal iqrar mooy ñu yéwéndoo fekk waa ji daa saxal wa huwa an yaddaiya shaxsun ala axar xaqan te mooy kenn woote woo ci keneen na ko yow dayoral nga ma àq fa yuqirru lahu bihi mu saxalal ko àq boobi fa yutiyahu lmudda'i mu daal di koy jox ka nga xam ne moo woote woon àqam shay'an dara musaalaxatan ngiree yéwénoo ak moom haysu lam yunkir alayhi xaqahu ndax moom kat weddiwul àqam te mooy niñ koy waxee sànq waa ji da da da la yoral xaalis nga ñëw na ko diw xam nga yoral nga ma xaalis de ah dëgg-dëgg wax nga dëgg de maa la ko yoral de nga ne ko nag sëñ bi war nga maa jox tey jii masalan trois cent mille jox ma deux cent mille yi cent mille francs yi bàyyi naa ko ngiree bañ ak xëccoo amaat seen diggante koo xam ne nii saxal nga ne yoral naa la trois cent mille mun na la bàyyil cent mille ci jox ma deux cent mille yi loolee ak juboo dana gaaw a am seen diggante kon mooy bu nangoo ne yoral na ma àq ka an yadaa anhu ba'du dayn mu ne mi ngi mel ne mu teggil ko lenn ci bor allazi aqara lahu bihi yoo xam ne waa ja amoon ba ba saxaloon na ne nangu naa ko aw yahabbahu ba'du al-ayn wala mu may ko lenn ci ay mbir yoo xam ne moom jëmm la allazi i'tarafa lahu biha boo xamee ne nii saxaloon na ko loolu te loolu masalan yow day xam nga yoroloon nga ma ñeenti xar mu ne la wax nga dëgg dana ko jëlal benn bi te delloo ma sama ñetti xar aw yusaalihuhu bi shay'in aqara bihi min ghayri jinsin ma aq ma aqara bihi mën naa yéwénoo ak moom it ci leneen lu bokkul ak la nga xam ne moom la ko saxalal ka an yuqira lahu bi daarin comme bu ko saxaloon na ko dëgg-dëgg kër gi yaa ko moom fa yu'tiyahu darahim mu jox ko ay dërëm aw yuqira lahu bi daaba wala mu saxal ko ne dëgg-dëgg daaba bi yaa ko moom fa yu'tiyahu sawban masalan waa ji jox ko la nga xam ne mooy ay yëri te ba tey it day wax fii rek ne nit ki mën ngeen am jooyoo ci daa jël sa kër jël sa tool jël sa oto jël sa nangam bi nga ñëwee wax ak moom ne ko diw day lii maa ko moom mu ne la wax nga dëgg de nga daa di jël lu am solo jox ko ne ko nag delloo ma sama alal ngi noonu nga jël lu am solo jox ko ne ko nag delloo ma sama alal loolee di ngay gis ni islam day nangu day day day day nangu loolu mi ngi noonu amma bu dee ñaareelu yéwandoo bi mooy as-sulhu alal inkaar yéwandoo boo xam ne moom waa ji daa weddi wa huwa an yaddai shaxsun ala axar xaqan ñu mel ne kenn ñëw ci keneen laaj ko àqam fa yunkiral muddai alayhi ka nga xam ne moom lañ jiñ weddi suma yusaalihuhu bi itaai cheyin gannaaw ba mu yéwénoo ak moom li yatruka dawaahu ngiree bay waa ji bàyyi la muy woote woo wa yurihahu min alxusuma ngiree mu da teggil ko dalal ko te dagg sante wal yamin ak waadiya allati talzimuhu inda al inkar te la nga xam ne da doon lënkoo mu si weddee masalan tey jii benn waay ñëw ne la yow de kër gi xam nga ne lii kër gi maa ko moom pàkk bi maa ko moom nga ne ko déedéet pàkk bi moomoo ko mu ne la sëñ bi pàkk bi maa ko moom nga xam ne fuñ jëm caa tekat ba yow mi weddi ne waa ji moomu ko bañ a dem ak moom càttekat bi nga yëkkati dara lu am solo lu koy bégloo na ko sëñ bi téel ci lii ca bàyyi wax yi ngay wax ngi noonu kan la ji ñoon ne da nga koo yoral am xar wala da nga koo yoral bor bu mu mën a doon tamit soo gisee ni soo yëkkatee dara teg ci loxo dana tax mu bàyyi lam lay topp ngeen jàmmoo islam dana nangu loolu amma ñetteelu sulx bi mooy as-sulh ala sukut ñu yéwandoo ci waa ji daa noppi wa huwa an yaddai shaxsun ala al axar xaqan te mooy kenn ñëw ci mbokkam daal di koy laaj sama aq nangam fa yusqatal mudda'i alayhi kañu jiñ mbir ma daal di noppi fala yuqirru wala yunkir saxalul li waa ji wax waaye weddiwu ko fa yusalih al mudda'i bi shay'in mu daal di yéwénoo ka nga xam ne nii da koy jiñ mbir ba ci dara hatta yasquta da'wahu wa yatruka maxaasamatuhu ba baa muy bàyyi lam doon woote ak dàggasante ba mu doon dàggasante te daanaka li sorewul ak bi ko jiitu te mooy waa ji ñëw na ne la kër gi nga day pàkk bi maa ko moom masala oto bi maa ko moom kaza maa ko moom yow amoo preuve yu leer yoo xam ne mën nga koo weddi amoo preuve yu leer yoo mën a saxal dana ko waa d'accord waaye nag jëlal lii ca bàyyee ma ko bu nangoo jël loolu islam day nangu loolu kon mbokk jàpp naa dañuy doyloo loolu nga xam ne mooy xamle lan mooy sulxu bu ñu fi yàlla dajalee nag ñu doog a dugg ci att ya nga xam ne moo ca aju di ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na yàlla xamal ñu suñu diine ca nangul ñu jëfe gañ koy jëfe wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain jaratul ngay aye ci man man ngay sama ay may naa ko yooyu Aïcha yooyu bari na lenn ci ay borom xam-xam yi doon wax loolu ngir woyee fal ko ko ngir it mu bañ a xalaat ci day teqali ko ak moom loolu it day am ne nit ki mën ngaa am sa borom kër ngeen amee yenn jafe-jafe yi la ngay bàyyi ci say aq ngir jàmm am seen diggante loolu lépp dafay bokk ci jaamu yàlla yi nga xam ne nit ñi dañ cee war a bàyyi xel moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne wa sulhu xayr ay jullit heure bu ñu amee problème ñu fexe ba ku nekk am lu ma bàyyi ba ak juboo am loolu mooy la nga xam ne moo gën ñooy dem di dàggasante ba mu jur noonu wallahu aalam naam insha allah kon su dee dafa am laaj yoo xam ne dafay aju ci kii waaw bismillah non non alayhi salaam ndax imam Shafi dane sulhu ala al inkar boobu boobu wéerul ala kulli xaal loolee da ngay gis ne ba nga ka gis loolu ma war a indi wax la la Shafi wax ba tax mu ne wéerul waaye ala kulli xaal suñu borom mi wax mooy a sulhu xayr sulhu yéwendoo yiw la looloo tax li borom téere bi wax mooy dëgg nit ki jóge na fële ñëw jàpp ne lii nga yor moo ko moom dara desul lu yéeg tribunal ak wàcc ngeen fexe nga bañ loolu nga am loo ko jox mu may la jàmm loolee da ngay gis ne islam nanguwul na islam nangu na loolu li lislaam nanguwul mooy yow xam nga ne nekkoo ci dëgg ba pare di def sulh loolee moom dañ ne incha allah dañ ko jàng ci ahkam yi ñëw ci kanam loolee daganul heure boo xamee ne nii yaa ngi yor ci aqi jàmbur moom da nga ko koy delloo mi ngi noonu lu dul ne waa ji ci boppam moom moo jël initiative boppam am lu mu la jox waaye amoo droit da ko wax nga dëgg de masalan yoroon naa la cent mille wax nga dëgg de waaye pour ma fay la nag da ngay bàyyi vingt mille ma jox la quatre-vingt mille heure boo ko defee moom du dagan waaye bu dee daal yow mbir bi woo waa ji ñëw na te yow amoo preuve ci li muy wax dëgg la wala du dëgg wala boog am nga preuve sax li muy wax du dëgg waaye nar na la yéegaloo wàccaloo bu dul jeex la nga koy jox loolee dana dana dagan nga jox ko ko moom it bu jàppee ne lii moo ko moom dana dagan mu jox mu jël ko fa muy xaraama rek mooy mu xam ne li muy wax du dëgg ba pare mu lekk àll ji ci neen incha allah loolu dañ ko jàng ci bindi ci kanam wallahu aalam naam naam bismillah naam koo xamee ne nii dafa yoroon ay bari koor léegi nag mu faatu ñi koy bëgg a fayal bari xamuñu ñaata la loolu day mel ni rek moom ci boppam bu doon dund xamul ñaata bor la am loolu ak bari na lool nit ñi di ko laaj mooy jigéen ñoo xam ne tegale nañ ay at di ëmb ak wasin dañu dañuy dem ba xamatuñu ñaata bor la am loolu dañ koy delloo rek ci waa ju doon julli xamul ñaata rakka la toll su ko defee moom dañuy xool waa ji kat normalement war na nekk borom yi war na nekk fukki fan ba maximum daal xam nañ ne mënut a romb ñaar fukki fan su ko defee ñu xool la nga xam ne moom bor ya mënu koo romb ñu basé wu seen fay ci loolu kenn mën na ko koo fayal ca ñoom manes na ko it séddoo masalan doom yi séddoo ko kii jël ñett kii jël ñeent ba bor yi jeex mais daal lañuy xool lañ jàpp ne mënu koo romb ñu basé wu fay ga ca loolu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam déedéet waaw ndax nit ki daf ko yoral bor amul lu mu ko fay mu ne ko xaaral mele sama doom ji jigéen ji mu mu fay ko la nga xam ne mooy can can gi ki ko moom mooy doom bu jigéen bi moo ko moom doom bu jigéen bi moo ko moom su doon te ne nii masalan waa ji da ko yoral masalan cent mille francs léegi mu ñëw ne da koy fay bu cent mille francs mu ne ko ma de cent mille francs sama doom bu jigéen bii nag xanaa bëggoo koo takk waa ji moom bu demee jël cent mille francs jox soxna sa can soxna soosee moo ko moom bàyyam moomu ko jëkkëram moomu ko kookee bu wëlbati ko fayal bàyyam borom ñoo xam ne daf fayal bàyyam borom waaye daal warul nekk automatique faye naa la sama doom bu jigéen te déet jigéen kenn du ko faye bor looloo tax ba l'islam du nangu sax li ñu tudde shira mooy nga yor doom bu jigéen ma yor doom bu jigéen wala nga am sœur ma am sœur nga nga jox ma sa bos ma jël sama bos fekk alal doxul ci suñu diggante loolu kon déedéet fokk daal ñu régler problème mu can gi ba mu féete boo doom de nag buy fayal bàyyam moo xam wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam ala kulli xaal kon mbokk dafa mel ni waxtu bi kon jege na yàlla nañu yàlla dëppale ngërëmam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain